73 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te nee góor ngóor li ëpp ci organisation yi ci nekk duñu ay parti politique suma limee juum waaye ay FRAPP ay MD ay euh, Y'en a marre euh, na ak keneen ak keneen duñu ay parti politique

moo tax yéen je vous rends hommage la jeunesse sénégalaise yéen jeunesse sénégalaise je vous da ngeen war a xam yéenay ñan yéen yéenay askanu Sénégal yéenay plus de 60 pour cent de la population yéen yéen a toll ci ndaw foo xam ne ku bugg a defar réew yéen la war a wéeru kon su ngeen demee ba jël conscience te li leer ba leer mooy tey la jeunesse a une conscience politique parce que ci passé bi dañ doon wax ni les jeunes n'ont pas de conscience politique les jeunes ñoo dul bindu ci liste électorale yi les jeunes ñoo dul voté ji tey est-ce que jeunesse boobu moo fi nekk vous avez pris conscience de votre responsabilité historique que mënatu leen toog naan ñëpp yem jàpp seen ñàmbur les mêmes nekk fi depuis Senghor ba léegi même problème yi ñu koy jànkonteel waaye dama leen bëgg wax leen lu am solo préparez bu au combat waa jii ñu jàmmar lool waa yi nga xam ne moom lañu ñu ku yaakaar ni wax ju neex ak taal climatiseur toog sa salon moo ko fi jële ndax nga sa bopp bëggoon naa leen wax benn discours bu teeg bi waaye on est obligé d'être réaliste ab président de la république bu demee bay recruter ay nervi kooku narul jàmm ci réew mi kon waajal leen seen bopp chaque jour chaque heure chaque minute te préparez-vous au te bu leen déglu nag ñiy toog naan leen way yéen a yee fitna jàmm nangam nangam parce que Sénégal mooy réew moo xam ne ki yoon nguur gi lu mu def rek baax na ñëpp gis nañu mu jël ay samba booy di daal ci kaw askan wi est-ce que loolu yéen di ngeen ko nangu préparez-vous au combat parce que ni ngi leen di gis yëpp nag. benn poignée la li mu yor ci ay nerf bi yëpp weesuwul cent cinquante wala deux cent vous êtes des millions loolu war leen jaaxal donc préparez bu au combat parce que Macky Sall ci nii wala nele dina abal réew mi jox nañ ko mu wane ni mënut tey lan la lan la nit doon jàmbat 2011 te doublé wul wala triplé wala sax multiplié ñu ko par 10 tey en 2021 nañ ma citer benn exemple rek. ba pare nga ne doo fi jóge te ku wax nga dal ci kawam est-ce que ngeen ko nangu. kon ñun li ñuy xaar ci yéen li ñuy xaar ci yéen mooy ngeen préparer parce que am réew li ko war a defar dafa laaj sacrifice na ngeen préparer ci sacrifice yooyu waaye sacrifice yooyu du am njëriñ lu dul nag ma delloo ko ci sama mbokk homme politique yi askan wi dafa doyal ci xeex ba jëlee fi dara teg fi leneen les mêmes méthodes reprendre les mêmes hommes reviennent ñu defaat les mêmes choses ñu war a reprendre le combat. dinañu xeex ba jëlee fi Macky Sall de mais kenn dootul nangu cette jeunesse ne l'acceptera pas nit ñëw toog indi sa njaboot indi sa famille jaay suñu ressources naturelles jaay suñu géej surfacturer les marchés publics euh, instrumentaliser la justice ku nga dal ci kawam di di pourchasser les les opposants di tëj nit ñi est-ce di ngeen ko nangu dama ne. Ousmane Sonko bu dee yàlla dafa war a def mu nekk président amatul état de grace amatul ñu naan nañ ko may day liggéey ku ngeen gunge ba mu nekk président yi son pied votre pied bu leen ko may une minute muy def lu ko neex parce que réew lu koy defar du benn nit je vous